li fi dajale mooy tey journée bi yëpp ñu yem fi ba 18 heures clients yi nga xam ne yëpp ñoom ñoo jëndoon ci programme Clos de parcelles parcelle viabilisée ñoom ñëpp ñu wan leen ñu identifier wan leen seen parcelle parce que ñu ngi si processus livré leen seen parcelle et ça c'était important pourquoi c'est important parce que monsieur le directeur général ça le programme est le premier programme de la CGIS. Il y a trop de difficultés en matière foncière liées notamment au non-respect des engagements par les promoteurs ou les développeurs. Donc c'était le premier programme de la CGIS et qui a connu un succès commercial. Parce qu'en neuf mois, nous avons pu commercialiser 700 parcelles en moins d'une année. Et une leçon de cette commercialisation, en mettant des facilités de paiement et en faisant confiance à l'acquéreur, parce qu'on ne demandait aucune garantie. C'est dans les facilités, c'était un apport de 1 million de francs et le résultat qui, qui était étalé sur un an ou deux ans. donc pays, pays, livraison phase bi nga phase de vie, mais de nous permettre aussi nous démarrer commercialisation troisième phase c'est vrai nous avons d'autres assiettes à acquérir mais amul lépp lenn loo famille, dans ni ko def nous en concertation avec les autorités locales les autorités religieuses et les autorités pour coutumières création d'emplois dans le la du dem ay ndaw beaucoup li contribuer au développement koom-koom bi. li bëggoon wax rek mooy damay taxaw d'abord sas Abdou Khafor Touré ndax lu mel nii buñ ko defee euh, ñi nga xam ne ñoo tax mu def ko mooy les acquéreurs ñoom seede nañu lépp lu ñu war suñu diggante ak ñoom des nañ ko dafay dalal suma xel mais bëgguma dégg ëllëg tamit ñooñu taxawaat ne am na leneen lu ñuy diggante digge woon suñu diggante ak ñoom fekk amul ndax Sénégal tey. ñu bëri bëgg nañ am kër naam mais léeg-léeg seen loxo mënul jot seen ginnaaw ba dinañ soxla dem ci ay banque pour di leb xaalis pour mun tabax te donc tey jii kayit bi nga xam ne ñu ngi koy joxe mun na am institution financière mën na ko bañ a wóolu bëggoon nag ñu gaaw ñu gën a góorgóorlu pour que ñu defal leen seen i acte de vente ku nekk mun dem ci notaire bi ku pare fay ñu jox ko kayit bi tax ba bu ëllëgee bu soxlaa dem ci benn banque mu am kayit bu wóor bu soxlaa it ndax adduna noonu la demee jaay li mu moom wala jox koy keneen mu du am benn gàllankoor te loolu daf ci am solo. li nga xam ne tamit tey mel nii buñ ko defee ci euh, bërëb bu mel nii dafay mel dañuy créer dëkk ci biir dëkk te boobu dafa am lu muy laaj dina laaj suñu ndaw si jamono dafa doy waar léegi di nga soxla fu nit di yóbbee doomam pour mu jàng ci wàllu école wala ci wàllu diina nga soxla ay bërëb yi nga xam ne teg nga ko yow sa wàllu bopp pour ne lii dañ koy gungewee projet yu mel nii te loolu direction générale sax de l'urbanisme boo amee projet lotissement bu day nii bu ci amul sax du ko nangu donc ma bëggoon nga gëstu ko nga pexe ba lépp li nga xam ne jëm na ci wàllu équipement ñu def ko ci ñu gën a góorgóorlu tamit pour que CGIS bañ a nekk mbiru Dakar rek sénégalais soxla na dëkkuwaay mais du Dakar rek la ko soxlaa soxla na ko ci bépp gox goxaat bi nekk ci biir réew mi nañ ci góorgóorlu mais finalement ñu dégg ñu fu ne ci biir Sénégal te yàlla mën na ko Bambilor dafa nekk léegi lu particulier ci biir démarche service ndax dañ dañ am jaati bu baax donc suñu sañoon ñu gën a développé ci biir Bambilor balaa ñuy wuti feneen ndax bu askan dalee lu mu waree rek li ngay sa gën a sawar rek foofu la koy yóbbu ci wàllu investissement